بسم الله الرحمن الرحيم لي موي خاجو فكل بأكبرنا كي وقتان الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مجمتي ني صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دي دفاق يوم بنيو ديك بنانجي دقي أجنا تجار واي جار يب balaa booba ci ndimbalal yàlla عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي يوم الجمعة مئة مرة جاء يوم القيامة ومعه نور لو قسم ذلك النور بين الخلائق كلهم لوسعهم لو سيدنا علي كرم الله وجهه نينا صلى الله عليه وسلم وخنا كجل كيموم بسب الجمعة تيميريون بو دكي اللي جمت تخوايبا دينغا أندق لير غو خامن بونكو سد لون بولم بندفي نيب دينا جام تخول اللي يلا سن بروم ساك بيك اي مندف نينيو تولو كون noonu la la salaatu ala nabi sallallahu taala alayhi wa sallam di gunge doon ak leer di la leeralal ca bés pénc ba nettil nañu ne bu bés pénc ba dinañu xëcc jant bi ba mu jege bopp yi ba yuur yi di xeb-xeb yi mel ni cin luy bax bu boobaa di nga gis ñu sonn lool aku mar am ñuy lab ca seenu ñaq ndaxu tàngoor bu boobaa genn ker rekk moo fay am muy keru arash sallallahu alayhi wa sallam wax ne thalathatun yowma alqiyamati taxta dilli arshi allahi يوم لا ظل إلا ظله قيل من هم يا رسول الله قال من فرج عن مكروب أمتي ومن أحيا سنتي ومن أكثر الصلاة عليّ mu ne bu yowmal qiyaame ñett daañu seelu ca ker gu arash bu tàngoor wa sonalee mbindeef ya te genn ker gudul ker gu arash nekku fa ñu ne ko ñooña ñu mu yaa rasulallah sallallahu alayhi mu ne ki nga xam ne sama xeet wi dañoo nekk ci njàqare mu génne leen ca ñaareel ba mooy kiy dundal sama sunna ñetteel ba mooy kiy baril salaatu ala nabi sallallahu taala alayhi wa sallam kon kuy baril salaatu ala nabi sallallahu taala alayhi wa sallam da nga bokk ca ñay seelu ca keeru arash bu bés penc baa ba tàngoor wa di waaja rey bindefi عن كعب الأحبار رضي الله عنه قال أوحى الله إلى موسى عليه السلام يا موسى أتحب أن لا ينالك من عطش يوم القيامة؟ قال إلهي نعم قال فأكثر الصلاة على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم جلننك كعب الأحبار رضي الله عنه منه سنبرم سبحانه وتعالى دفو وحي سيدنا موسى عليه السلام نكو موسى ndax bëgg nga aw mar bañ laa sonal ëllëg yowmal qiyaam sayiduna muusa alayhi salaam ne ko waawaaw subhaanahu wa taala ne ko kon deel julli ci muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam te buleen leen ne sayiduna muusa alayhi salaam ab yónnente la bu ko subhaanahu wa taala nee boo bëggee mucc ca mar wu metti wa yowmal jaare ko ci salaatu ala nabi sallallahu taala alayhi wa sallam loolu day wone doolee salaatu ala nabi sallallahu taala alayhi wa sallam ak darajaam kon salaatu ala nabi sallallahu taala alayhi wa sallam day taxa seelu ca keer ko arash day taxa mucc ca marwu tarwa mbindeef ya di nekk yowmal qiyaam te salaatu ala nabi sallallahu taala alayhi wa sallam sun borom da koy def jëf ju diis lool dencal la ko ci ay téere nettali nañu ne bu yowmal qiyaame ba ñuy peese jëf yi da nga gis jullit yoo xam ne buñ peesee seeni jëf seen jëf yu ñaaw day ëpp lool seen jëf yu rafet ñu tàmbalee tiit lool fa saasa am ay téere yu weex tàll yu bàyyi ko fa sun borom wàcc tege fa jëf yu rafet ya féete bu ko defee nag seen jëf yu rafet dal di gën a diis léegi jëf yu ñaaw yi subhanahu wa taala ne leen téere yooyu mooy salaatu ala nabi sallallahu taala alayhi wa sallam yi ngeen daa def ñu dencaloon leen ko ba ngeen nekkee adduna noonu yi tamit la salaatu ala nabi sallallahu taala wa sallam doone ak leer bu lay leeralal siraat mooy pont bi ñu gàcc ci kaw jahannama te kenn mënu caa ñàkk jaar boo koy jéggi salaatu ala nabi sallallahu alayhi dina doon ak leer bu koy leeralal ndax siraat dafa lëndam këriis comme ni ñu koy waxe gën a sew caas gën a yëngu jaan sallallahu alayhi wa moo wax ne alsalaatu alayya نور يوم القيامة عند ظلمة عند ظلمة الصراط فأكثروا من الصلاة علي جلي جنجين دي جلي كمان أجلير ليدون بنجين دي جيج صراط أجلن مايبا مليرا للين فينجين دي جار مني لولو تخ ما ديجل لين جين دي بريل صلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ngir mu nekk ak leer ëllëg gu leen di leeralal kaw siraat قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ذات يوم رأيت البارحة عجبا رجلا من أمتي يزحف على الصراط مرة ويحبو مرة ويخر مرة ويتعلق مرة فجاءته صلاته علي فأخذته بيده فأقامته على الصراط حتى جاوزه صلى الله تعالى وسلم دفوخ بين بسنة بيك دي قسنا لو يامي دفع بين واي تسمى خالوي بدون جيجي الصراط واي كملو مت لدون جيجي نخ ليك ليك مرام ليك ليك مرتش دانو دالي جفن وات وكبير جفا جفا يويو للصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يمدى دف دون جم جنيو جابو تلو خوم يكتكو ومتكو جيجلكو صراط كن صلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نونو للي خطلي كبرب نجاقر يويو كبرب يمتي يويو كبرب يويو نغا خمني كرن دفتال كن بوليكو صلاه على النبي صلى الله wa وسلم di la ràmmul boppam ndax moo wax ne moom sallallahu taala wa أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة كي جنا يكي من بو يوم القيامة مويكي أبلو مدف صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول من صلى علي كنت شفيعه يوم القيامة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه نينا دقنا ينتبه صلى الله تعالى وسلم منان كجل كمن ما نمكيد في الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما كوي رمل سمبق يوم القيامة صلى الله تعالى عليه وسلم ما وقت منه من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته الشفاعة يوم القيامة بوخي جلتي موم فكيون بوغونتي جلتي موم فكيون مولاي رم البقم يوم القيامة صلى الله تعالى عليه وسلم نينا أكثروا من الصلاة علي فإني أشفع لكم على قدر ذلك موم صلى الله عليه وسلم دانو ديغل ني بري الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم داخ كين كوني نيغا كو بري لي ني لا لاي رامو موكو واخ موم صلى الله عليه وسلم مو واخات ني اكثروا علي من الصلاه يوم الجمعه فان صلاه امتي تعرض علي في كل يوم جمعه فمن كان اكثرهم علي صلاه كان اقربهم مني منزله دانو ديغال نوي باري الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تبسي الجمي دخنينا صلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يجل دي ديف ديف نكو كوان موم صلى الله عليه وسلم الجمع جور جوني كوتي أبلي نينا ياي غنى ياي تي موم ياكوي غنى جيغي تي واتي واي موتاخ شيخنا الخديم رضي الله عنه ونفعنا ببركاته وخنه وأنها توجب يوم الحق شفاعة المختار خير الخلق منبر الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دينا ورا سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم رملا مبس بنجبا بر الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم dina waral bu jéggee sirat ba noppi mën a naan ca dexug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sangu ca tamit ku ca naan dootoo mar ku ca sangu dootoo taq sallallahu taala alayhi wa sallam moo wax ne la yaridanna alxawda aqwaamun laa acrifuhum illa bi kathrati alsalaati alayya mu ne bu yowmal qiyaamee moom sallallahu alayhi wa sallam am na ñuy root ca dex ga ñoo xam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 bokki taalibe yi salaatu ala nabi sallallahu taala alayhi wa day jariñ jullit bi fii ci àdduna di ko jariñ ca àllaaxira géemu jëm njariñ lu gën fopp lu ko laneen lu dul moom di jariñ ci ñaari kër yi di ko jariñ di ko ko jariñ tamit ci këru diggante bi muy barzaq li ci ay tegtal lépp nag te yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam wax ko saxaabatu rasul ridwanullahi alayhim wax ko awliyaa yi ak saalixuun yi wax ko mënee suta andi lépp waaye ñoo ngi ñaax suñ bopp di leen dollee ñaax yéen tamit ñu gën a fonk salaatu ala nabi sallallahu taala alayhi wa sallam gën cee farlu bu baax di ko bari lool di ci roy sun boroom ak malaayika yi alayhimu ndax mooy lenn li nga xam ne moom la yàlla sant mbindeef yi ba noppi jiitu leen ca te di ko defandoo ak ñoom ndax moo wax ci alquraanul karim إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما من يلا أج ملائكي دن يجلي كي يننتبه صلى الله تعالى عليه وسلم من يكون ين ين ين بولم جلدي من لين دي سنت ين جلي كي يننتبه صلى الله تعالى عليه وسلم تسلمتي kon ab sag munta gën a rëy ku toll ne sun borom subhanahu wa taala sant la mbir ba noppi di ko defandoo ak yow ndax sun borom subhanahu wa taala sax ba mu digalee malaayika yi ñuy sujjootal aadama digalu ko woon sax malaayika yépp ndax am na malaayika yoo xam ne bokkuñu ci woon malaayika yooya dong ñoo ko def ñam ko digal waaye lii mu sant jullit yi moom ci boppam da koy def mu sant ko malaayika yépp timit ñu di ko def kon loolu ab sag bu rëy la ci nun kon nan gën a fonk صلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لنما صلى الله عليه وسلم نينا أنا حبيب الله تعالى والمصلي علي حبيبي فمن أراد أن يكون حبيبا للحبيب فليكثر من الصلاة على الحبيب نينا من ما يسبب سنبرم سبحانه وتعالى kiy julli ci man sama soppe la kon ku bëgg a nekk soppeb soppeb suñ boroom na baril salaatu ala nabi sallallahu taala wa sallam ci soppeb suñ boroom subhanahu wa taala ci leeral moom dane mooy soppeb suñ boroom subhanahu wa taala kiy def salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam soppeeb yónnente bi sallallahu alayhi wa sallam lay doon mu ne kon ku bëgg a nekk soppeeb yónnente bi sallallahu taala alayhi wa sallam nay baril salaatu ala nabi sallallahu taala alayhi wa sallam kon nanu na nanu bëgg a nekk soppeeb yónnente bi sallallahu alayhi wa sallam ci di baril salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam rawatina bisub aljuma ابن حجر نونا na ci téere bi tudd ak durul mansuub jële na lenn ci gaayu baax yi ñu ne أن الاشتغال بها يوم الجمعة وليلتها أعظم أجرا من الاشتغال بتلاوة القرآن ما عدا سورة الكهف لنص الحديث على قراءتها ليل الجمعة ويومها mu ne bisub ajjuma ak guddi ga di ci def salaatu ala nabi sallallahu taala alayhi wa sallam moo ëpp bi yool jàng ci alquraanul karim ba mu des suuratul kahf ngir njariñ yi sallallahu taala alayhi wa sallam wax ne moo nekk ci jàng suuratul kahf bisub ajjuma ak guddik ajjuma sallallahu taala alayhi wa sallam nee na إن لله ملائكة خلقوا من النور لا يهبطون إلا ليلة الجمعة ويوم الجمعة بأيديهم أقلام من ذهب وقراطيس من نور لا يكتبون إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من ne sun ملائكة am na malaayika ملائكة xam نك يو duñu wàcc lu bisub bésub ajjuma ak guddik ajjuma dañuy yor ca seeni loxo nee na këyit yoo xam ne ci leer lañ ko defare ak bigi or ñoom nag dara taxu leen a jóg lu bind salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam yi jaam ñi di def ci guddik ajjuma ak bëccëg bi moo tax sallallahu alayhi wa sallam wax ne akthiru alayya min alsalaati yowma aljumaati wa leylata aljumaati فمن فعل ذلك كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة من ديل بر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الجمعة أجدك الجمعة من كوكاي بريل ما لي سيد اللي يوم القيام ما لي رم لأن موم صلى الله عليه وسلم من صلى علي يوم الجمعة مئة مرة غفرت له خطيئة ثمانين سنه ku julli ci man bisub aljuma téeméeri yoon def na ko jéggal bàkkaari juróom ñett صلاه العصر من يوم الجمعه فقال قبل ان يقوم من مقامه اللهم صل على محمد النبي, النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما ثمانين مره غفرت له ذنوب ثمانين عاما وكتب له عبادة ثمانين سنة وجل تكسان بسب أجمع بل نغا جوغتي جتاي بجلغي نغا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما جروم نيت فكيون ديفنا لجيغل بكاري جروم نيت فكي bindal la jaamu yàlla juróom ñett fukki at kon bisub ajjuma di ci def salaatu ala nabi sallallahu taala wa dafa gën sax fopp ci nga di ko def ci yeneen bis yi kon nuñ ko mën a def ci yeneen bis yi nañ ko gën a fonk ci bisub ajjuma segam timit dañ ne salaatu ala nabi sallallahu wa sallam di ko def ci bésub ajjuma moo gën fopp di ca jàng alquran ba mu des sooratul kahf xam ngeen jàng alquran ni mu amee solo alquran di waxe suñ borom subhanahu wa taala lu ko ëpp solo amul mo gën ci waxi bu fekkee nag salatu ala nabi sallallahu alayhi wasallam def ko ci bésub aljuma mo ëpp yool jàng alquran ci bésub aljuma bam mu des sooratul kahf kon salatu ala nabi sallallahu alayhi wasallam lu am doole la lu am solo la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 ni ñu koy defe ak ni ñu koy doxale ak yenn lim yi kon muy lu ñuy jiital rek ba ñu caa tàbbi salaatu ala nabi sallallahu taala alayhi wa sallam yi am bari na lool ni leen ko waxe woon ne mat na junni ba fukki junni ak ñaar dañoo fees dell ak njariñ te am doole lool yi ñuy waaj a wax yenn la ci am na ci yoo xam ne yu siiw lañ am na ci yu siiwut waaye salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam bu ci waay jàpp di ci sàkku ngërëmal yàlla te way ca dàkk te sellal ko dina ko ca ab ci ndimbalal yàlla ak yërmandeem doonte du ci yii may waaj wax gu mu doon rek na doon salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam lu mu gatt gàtt baax na teewul nag nee ñu salaatu yi dañoo ëppante doole salaatu ala nabi sallallahu taala alayhi wa def na ci faj ay aajo yi ñuy faral di dikkal ci àdduna niñ koy faje ci turu yàlla yi ak xawaatim yi أغيان سكري الإمام الدينوري ننا إذا ابتلي المؤمن بالمصائب والأمراض والغموم والكروب أو يطلب المناصب والجاه أو ابتلي بالفقر والذلة وغيرها أو بعزل عن منصب وهو يريد أن يناله أو بنزول الآفات السماوية وظهور البلايا الأرضية وهو يريد دفعها فليكثر من الصلاة والسلام على سيد الأنام في الليالي والأيام فإنه ببركتها ينال مرامه والمقامه مم الامام دينوري diinoori بفك جلد به سنبرم دكوتك او تيس ولا توت wala njàqare wala ak ñakk wala ak toroxte wala daraja jum amoon mu xañ ko ko mu bëgg ko jotaat wala mu bëgg daraja yu kawe fii ci àddina walla mu bëgg a sampo wala yàlla subhaanahu wa taala wàcce am nattu bu rëy ci kaw suuf lu mel ne balaa nga bëgg koo jeñ na ngay julli ci ngën gi mindeef sallallahu taala alayhi wa sallam lu bari guddi ak bëccëg sayiduna muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam nee na man salla calaya kulla yawmin miata marra wa fi riwayatin man salla calaya fi lyawmi miata maratin qada allahu lahu miata xaajatin sabciina minha fi alakhira wa thalaathiina fi ddunya ku julli ci man bés bu set téeméeri yoon walla mu ne ku julli ci man téeméeri yoon ci bés bi sunu boroom dina ko fajal téeméeri aajo mu ne juróom-ñaar fukk yi ca àllaaxira lay doon fanweer yi fii ci àdduna lay doon kon yitte ju ñu mën a am mënees na ko saafara salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa صلاة على النبي يبقى أم صلى صلى الله عليه وسلم نانا من أكثر الصلاة علي أغناه الله تعالى غنى لا فقر بعده منكوي بري الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تسخلكو سنبرم دينكو dina أمكم jox دوت السخلال كان لن تدوت نيك بفاو وخل نتمنى من صلى علي كل يوم خمسمائة مرة لم يفتقر أبدا كجلت من بسبس جرومي تيميريون سنبرم سبحانه وتعالى دينك وومال بدوت النك دوت سخلال كن لن صلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أمل lu mënta faj muy ci àdduna ak ci àllaaxira géeñu jëm